bu dee di dem si seen kii bi d'accordul woon ci couleur yi déjà mm-hmm. couleur yi d'accordul woon ci couleur yi ak ci yeneen ak yeneen yu mu d'accordul woon aujourd'hui s'il y a ay petits détails yu ñu wax ci colis yi également ma xaw fàttali tuuti yeewi noo ko jàngatee euh, ngeer non lii lii day moo moo gën a dëgër yeewi parce que xam nga lu tax mm. intérêt Sénégal moo menacé wu te ñëpp santiir ko xam nga yeewi benn waaye ko taxawaloon rek ngir mucc ci coowu Sweet Beauté ah, looloo taxawaloon yeewi laa wax parce que mouvement m 2 lañ déparé woon bu leen fàtte fi yeewi déparé de M2D bi déparé yi taxawee la kenn déggatul m day baax ñuy fàttaliku nag mbir mii Sénégal intérêt Sénégal mu menacé wu ay nit taxaw jóg ñi bëgg réew mi nag laa wax jóg ñoom aji mbergaan ak ñii ngay waxe avant dañuy concerté wu seen biir doo ko waxtaan ak say nawle mm-hmm. kuréel gi taxaw na doo jékki-jékki rek yow leader bi nga dem da leen di dajale waxtaan ak ñoom d'ailleurs maa ngi dégg ñu ne Amadou Ba dafa convoqué na réunion xaw ma vingt 24 septembre kuñ faat place ay nitam fa que ñu réunion waxtaan mais sànq bi ñuy dugg si am na lu ma la wax ci Ba ak lii ñu taxawal kuréel gii nit ñu baax ñëpp fa lañ jëm dafa la ñuy bokkee parce que réew mi la mën menacé wu ndax Assane Seexu nu moo bëgg majorité assemblée national te Assane moom moo ne woon Mélenchon dinañ la toloore te assemblée mooy toloore ngóor jigéen lu ko sénégalais bu ci tiitul doo nit ñëpp ci war a tiit Assane mi diggee tolérance moom mooy laaj majorité <laughs> ko ba ba kenn jox ko ko xam ëllëgee bu yàlla duma yow lay njëkk a duma parce que yaa koy jox doole. kan mooy kan mooy Assane kan mooy Assane. kan mooy Assane Seexu Ousseynou Assane Seexu laa wax de. waaw <laughs> bàyyil ma dem rek ah te léegi kuréel maanaam réew mi fi mu toll kenn mënul gagné élection ak yow kese di demandoo nii di pëcc xoo da ngeen def benn dànk xàccandoo dóorandoo te waa APR na gis nga élection yi seen sauvetage la pour ñu sauver ñoom ci élection yii la mooy ñu góorgóorlu jéem a am majorité jéem a couvrir seen nit ñi nga xam ne Ousmane Sonko da leen fas yéene kidnappé parce que foo pool financier bii ñu taxawal du wër alalu askan bee tax nañ waxante dëgg du wër alalu askan bi taxul wër jege woon Macky sàll moo tax jege Macky sàll crime la ci gouvernement bi. parce que gis nañ ñi jege Macky Sall la jàpp nit yi Macky Sall la ñuy jàpp seeni nit kenn laalu leen te ñoo fi dàq defi tooxi doona bu problème mu baa ngi nii tooxi doona gënu ko rëy te kenn tuddul Cheikh Cheikh Tidiane Dièye kenn tudd ko Azer kenn tuddul kee léegi nitu Macky Sall yi lañ bëgg topp di jàpp moo tax ñoom ñoo gën a am intérêt gis nga lii ñoom ñoo gën a am intérêt sax que Amadou Ba parce que Amadou Ba amul benn rapport bu ko tudd amul dara lu ko topp ñii nag ñi ngi leen signe fang ba aaye leen sax ñu génn réew mi ñoom mu am intérêt ñu booloo nekk benn fàtte seen bopp ku nekk département bi nga bi nga am doole nga samp fa ñu jiital la foofu koo xam ne si nag amoo base nga ñëw ci list nationale bi nga dem xeexi li mooy solution bi xam nga ne waa APR ku ci nekk am genn wàll gi am nañ eh, base politique ku ci nekk nag sa base nga dem samp tañ doon benn parce que gis nga tëngéej ki leen gañee ñoom bu ñu cumulé li bennoo am da nga leen a tirpilé mais waa ji raw gàddu la Thiès Benno Bokk Yaakaar seen candidat yi li ñu amoon doublé na Babacar Diop foofu mais dañoo divisé wut ku ne def nii léegi loolu nag leçon la géejewaay gii buñ takkoo benn amet ak gàkku dañ leen a turpilé mais dañoo tasaaroo waa ji ñëw rawe leen tuuti dem yoonam yooyu nag nañ ci jànge gis nga sa démb moo lay jàngal sa tey ki yow ku ne xam na ki la ëpp doole ci gox bi toppal ci ginnaaw bul soxor waaye boo naan noo c'est que daf ma ci boolewul nga dem yàqal ko gañewoo gañewul lan la tey jii man Omar mii lu ñu lu ñu lu ñu dëngoo dëngoo euh, ci laa gën a mën audience que keneen ku bokk feneen tey dëngoo nañ jàppale naa la ba nga falu su ma la soxlaa naa la gis mais suñu àndandoo tasaaroo euh, waa koñ bële gañe du ma leen mën a gis kon nañ waxante dëgg Amadou Ba lu lu leen mën a def dem amanteeg Amadou Ba rendez-vous moo gën a yomb amanteeg Sonko rendez te pour en rendez-vous Amadou gën a dal xel yow leer na kii mu la ëpp doole ci gox bii tëngéej diw moom a ëpp doole mais naa topp ci ginnaawam nangu loolu nangu la. dem naa dem naa bii gox kii moom a fi ëpp électoral léegi man am naa tuuti naa ko def ci kawam mu kee bu ñëwee ñu raw ko di dem suñu yoon comme raw gàddu la. Ah, Thiès ñu ñu ñu topp si ginnaaw Abdoulaye Dieng te Abdoulaye Dieng dafa dafa yéex a ñëw mais amoon na benn kii boo xamante ne après ñoom d'accord ñu woon ci loolu léegi nag ñi lay topp bu militant yi naan la noo yow la yaa war a dem noo da ngay xalaat man mii mille voix laa am mais ah Omar am na deux mille voix man su ma demee sama mille voix Serigne day ñëw am am am deux mille cinq cent daf ñuy raw naa ko jox sama 1000 voix ñu rawe sëriñ 500 voix gagné gagné affaire yi bu ko defee man au moins dinaa am lu mu ma jox wala dinaa am sama nit yoo xam dina leen jël ñu àndandoo liggéey gënul yomb mais soxorante soxorante moo daaneel waa APR bañante waaye xam nga ne kon jomaay mi mënul am 54 pour cent Kaffrine bu ko APR perte parce que dañoo soxorante ndax gis nañu réalisation yi am Kaffrine gis nañ lañ fa def soxorante tax ñu perte Kaffrine gox yu bare bare soxorante ak ndaw ñu bañ seen bopp nag ndax ndawi Kaffrine moom gisaguñ dara gisaguñ dara ñoom moom gisaguñu dara dara démb jooy yiñ ma yónnee ci ñoom nee naa leen jooyagu leen da ngeen di bëgg a jooy ñu Ablaye Seydou Sow wutaloon liggéey xaaj yëpp daq nañ leen te ñoo wëlbatikoon di xeex Ablaye Seydou Sow gisaguñu dara nag lii lancement la waaye élection législative yi ku nekk la nga defoon ci nga ko war a tuub ci nga ko war a tuub parce que ñii bis bu ngeen leen joxee majorité ah baax na école catholique de repp nañ ñoom ci ñëw ci kanam alors euh, euh, euh, Omar ndax ndax yaakaar bi ñuy am ak espoir bi ñuy am si si si atel peut-être mën na jéggi peut-être li ñu amoon ci yeewi parce que yeewi nag quoi qu'on puisse dire bouleversé na woon jamono yooyu li nga xamante ne moom moo di coalition yi fi nekkoon yëpp vraiment Benno Bokk Yaakaar yeewi ñaari temps waaw dañoo réussir loo xamante ne mm-hmm. tey jii yaanaa waaw lu yeewi moom moo indi lu bëree bëri bëri bëri ci atmosphère politique bi jamono jamono jooju noonu aujourd'hui ndax mën nañu xaar loolu ci atel ak ni mu formé woo parce que j'ai vu de de de, grands hommes ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall il y a aussi comment il s'appelle les Thierno Alassane Sall les Thierno Bokoum il y a euh, Anta Babacar Ngom entre autres euh, des yoo xamante ne tey ne sont pas peut d'accord ak ni nga xamante nguur gi noonu lay doxale mais d'accorduñu si li nga xamante moom la élection yi ñu jëm tëddee est-ce que am nga espoir ci ne ñoom seen seen en fait euh, seen xeex bi boo gisee man yaakaar naa dina euh, premier défi bi mooy unité. Euh, parce que tamit comme li ma koy wax xam nga bon comme l'a di tout à l'heure Seynabou comme que nee na bon peut-être Amadou Ba moom ci plateforme bi la bokk. Adji Mbergane Kanouté ci plateforme bi la bokk léegi tamit bon je vois pas l'intérêt tey jii nga bokk ci benn kuréel kuréel googu di amal ndaje yow nga amal feneen ndaje. Mm. donc je pense que loolu rek day wane ni en fait parce que loolu par rapport à la communication loolu day teeloo xel léegi nag euh, ñoom leur plus grand défi kon ni ma ko waxee mooy l'unité léegi unité boobu parce que ay élection buñ koy buñ ci jëm il faut ñu amal ay concertation waxtaan si léegi nag ñoom est-ce qu'ils auront le temps en fait c'est ça le problème parce que tey ji ils ont dix jours parce que dépôt liste yi c'est c'est le 28 euh, même au niveau de Pastef sax que même au niveau de Pastef dem maa ngi dégg Birame Souleye Diop di def ab déclaration naan way euh, nit boo ko jiitalee danga nga ko war a déglu ainsi de suite pour dire que en fait nañu bàyyi Ousmane Sonko tey jii mu am latitude du tànn kan kan moom mooy dem si euh, yooyu lay jongante am na ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ni warul demee noonu choix bi dafa war a nekk au niveau de la base yéeg si kaw léegi nag mais le problème mooy le problème du temps parce que tey jii bu fekkoon ni élection ñu ne la élection dans trois mois wala élection dans deux mois wala bon dans trois mois wala un peu plus quoi parce que dépôt yi boo déggee ñu ne le dépôt c'est dans dix jours n'est-ce dans dix jours nga war ci tànn